auzu billaahi mina seytaani rajiimi bismillaahi rahmaani rahiimi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonentam ba Seydina Muhammad salallaahu alayhi wa sallam fooy mën a nekk ñëw leen di ziar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéwal yaar defaru àddina ak àllaaxira rawatina yéen ñi abonné ci Daaru Salaam Sifaahu diwaan Daaru Salaam Sifaahu dana seet bu la seetlee wax la sarax wala wax la sa càngaay foo ma dem defi ji ko fa nga dem defi tey nag li lay andil mooy ismu jalaal ismu jalaal nag wax nañ ne bokk na ci daayiratul xitaatati moom it dis ismu jalaal tamit dis na ko wax waaye ismu jalaal daal mooy ahamun saqakun xalaun yasun muy tur nag bu doy waar te bari solo lool te bari njëriñ 1111 bi nag baax na muy lim bi waaye boo leen ko ko liggéey da nga saraxe tablatu nen wala am gàtt xar bu weex mille bi bala nga ko ko liggéey mi koy liggéey bu bëgg cee jëriñu loolu mooy sarax bi mille bi moom dafa am sarax lu mënul amul nag mën naa jañ mën naa indi mille cent bi boo ci defee loolu ñu wax sarax boobu gàtt bu weex nga ci saraxe way laa tablatu nen bi ci toppaat mooy trois cent trois cent mooy Jayson ñetti ak fukk ak ñett kii ahamun saqakun xalaun yasun nga ko koy liggéey kii boo ko koy liggéeyal dana indi xewal dana la ba tey bu la neexee tamit nga bind ko boo ko bindee trois cent ba pare da ngay wut téeméeri diggu sumb ak once pont ak onze lancette ak once puso nga wut léegat bu bees tàq nga def ko ca nga sangoo ko jàmbu saafara nga sangoo ko da ngay wut once puso once pont onze lancette ak téeméeri dégg sump nga boole ko ci biir léegat gu bees tàq kooku fekk bind nga ahamun saqakun xalaun yasun 313 ñetti téeméer ak fukk ak ñett sang mën a nga ko sangu sa kër waaye mën ngaa dem ca ba ci ab àll nga sang ko foo xam kenn doo gis boo paree da ngay dëgg ci leget gi mu toj nga jël pusa ya ak lañset ya nga wàqi ba mu xóot nga suul ko kooku liggéey bu mu fekk ci yow toj na ko ci kàttan suñu borom tabaaraka wa taala lépp lu mu fekk ci doomu aadama luy yàqu doomu aadama wala lépp luy gàllankoor doomu aadama day dañ trois 313 bi tamit ku koy liggéey moom baax na ci wàllu ubbeeku waaye bu koy liggéey yéene ci ubbeeku muy ahamun saqakun ala un yasun ji bii muy kanzun bi muy 77 moom it baax na ci xéwal boo ko mënee di ko def suba ak ngoon day indi xéwal mooy ahamun saqakun ala un yasun ginnaaw julli ginnaaw julli suba ak ginnaaw julli gee nga saxal ko di ko def ci kàttan suñu borom danga nga am xéwal douche bi boo ko mënee di ko def moom nga saxal ko ginnaaw julli farata gu nekk ci kàttan suñu boroom boo jullee farata ba pare nga sëlmal nga def ahamun saqakun xalaun yasun fukki yoon ak ñaar sam noonu du la mënal dara te boo ko saxalee di ko def tamit sam noonu day deltu day gën di deltu ginnaaw sa kanam lii képp ko saxal ci ginnaaw jullit farata gu nekk sab noonu du la mënal dara te képp ku doon noonu tamit day gëlti day gën di deltu ginnaaw ci sa kanam muy ahamun saqakun xalaun yasun fukki yoon ak ñaar ginnaaw jullit farata gu nekk bii tamit day indi xéewal ginnaaw jullit farata gu nekk onze fois fukk ak benn nga def ko ahamun sàqakun xala un yasun ginnaaw julli farata gu nekk nga koy saxal ko di ko def ci kàttan suñu borom day indi xéwal moom nag mooy ismu jalaal mu ngeen di dégg moo nekk ni ahamun sàqakun ala un yasun muy tur wu yéeme nag boo koy jël nag jël ci lu yem muy comme lim li maanaam trois cent treize baax na mille cent onze moom dangay def sarax bi doon ko mën a liggéey ba def sarax boobu day tàng ci yow waaye yi ma wax ni nag képp ko def moom laajut sarax mën nga ci liggéey jaamu ci yàlla défendre ci xëcc ci ci carton suñ borom kon ñëw leen ziar leen ñaanal jàmm gudd fan wér vidéo bi nag ku ko tas moom na ko ko desaat ndax amun bii doom loo am solo ñëw leen ziar baax a baax